noo ko tuddee sa bi comment avoir une vie saine. xaw ndax tey on va manger sain nag Sophie ndax gis naa fa yu jàmbaajoo torop. mais neex na daal buñ paree rek dem defi sport amul benn problème. <laughs> non bisu t'inquiète on va manger sain. waaw koy àndal euh, ndax man toujours bu may togg du ma def cholestérol bu bari. Mhm. Euh, tout on équilibre quoi. waaw day am équilibre te dañ koy doser ba mu ba mu yem daal. Mhm, mhm. waaw ay Aïcha looy defar tey. déjà ni euh, crêpe la ñu andi tey. crêpe euh, croustillant au chocolat pour les enfants comme ni ma ko waxee woon fii nag malheureusement gisuma fi enfant bu ma paree rek dama koy yóbbu kër. ku ci enfant yëkkati sa loxo. enfant loxo ca kaw ñëpp et en dehors du plateau. kon après kon après ñun ñëpp dinañ mën a déguster ci kanam ñëpp a maas cinq ans rek. boo bëggee sax ñu wax la tata Sophie. non ñëw ko garaaw amul problème. <laughs> <laughs> no bisu nag comme ni nga ko gisee nii déjà euh, crêpe bi dafay xaw a jël temps moo tax euh, ma euh, commencé à l'avance déjà ni mën naa expliquer ni nga xam ni moom laa defaree pâte bi xam a génne bii daal di defaat beneen mën leen expliquer composant wu pâte bu tey bi déjà dama jël 250 grammes de farine jël un demi litre de lait. un verre d'eau euh, cinquante grammes de sucre ak euh, ñetti neen moom laa jël mélangé ko d'abord da ngay njëkk a def euh, li nga xam ni mooy farine bi def sucre bi mélangé creuser benn fontaine def nen bi jël benn fouet wala benn cuillère en bois daal di mélangé nga am pâte bu mel ni pâte bu homogène comme nii gis nga nii du am benn grumeau nga daal di jël beurre bocage def ko ci sa benn marmite seeyal ko sotti ci bàyyi ko 10 minutes mu reposé wu nga ñëw commencé defal li nga xamante ne nii mooy sa crêpe bi lu tax nag ma ciy def un verre d'eau parce que la plupart du temps day am crêpe yoo xam ne boo koy lekk après sa biir bi dafay ballonné parce que pâte bi mooy bari moo tax damay njëkk a def ndox mu apaiser ko ma meew bi am bi déjà nii crêpe yi am na aussi yu ma jot a defar mën naa ñëw rek dama koy tourner pour am yi nga xam ne moo sedd ci suuf ma ñëw tàmbali li nga xamante ne ni mooy suñuy euh, crêpe déjà mën naa taal bi nii nii dama def un peu d'huile bu la neexee aussi mën nga def euh, bër à la place déjà nii damay jege li nga xam ne mooy euh, suñu chapelure damay jël aussi benn nen directement ma daal di koy toj ci benn bool battre ko en omelette gis nga nii rekk su ma amee aspect bi damay ñëw directement jël chocolat bi daal di tartiner ni nii légèrement ci crêpe bi su ma paree ma daal di jël sama ñaari fruits confits daal di teg ni su ma paree directement première étape bi mooy da ngay couvrir ci cat bi soo paree nga rule benn yoon daal di rabattre les deux côtés ñii rek directement. su ma ko defee nii nag ba pare bijou gis nga da ngay am benn benn forme cigare mais nag il faut nga xaar huile bi nga teg xaw a tàng tuuti. en attendant mën naa defaraat yeneen. waaw surveiller waale crêpe bi nga xam ni moom laa teg ci poêle bi. crêpe bi nag boo koy defar de préférence gaz bi da nga koy wàññi sinon dafay euh, cramer nii bii dañu ko xaw a fàtte gis nga nii mu ngi commencé woon di cramer. mais c'est pas grave comme te dañ koy waat mën naa ñëw rek continuer tartinewaat beneen nga nii rek ma daal di jëlaat ñaari fruits confits tegaat ni fermer ko une fois waaw comme booy defar neem nii rek léegi nag mën nañu commencer li nga xam ni mooy euh, friture bi déjà mën naa jël bi directement ma def ko ci li nga xamante ne nii mooy nen bi daal di koy rouler su ma paree directement mën naa ko andi ci li nga xam ne mooy chapelure bi daal di ko ciy jàllale mu am benn aspect croustillant directement rek ñu daal di saaf noonu la ñuy continuer bisu am na yo am na yoo xam ne jotoon naa ko defar gis nga trois yi jot naa ko defar su génnee. Mhm. aspect bi lay am ak couleur bi ci kanam tuuti nag masaaf defaraat yeneen. ñu daal di am ah, li mooy aspect croustillant bi waaw. ok d'accord léegi saafal ñu ñëw dégg nga. d'accord bi ok merci beaucoup à tout à l'heure merci beaucoup Sophie donc tout à l'heure maa leen doon wax